ëpp ci laaj yi ñoom député yi daanaka dañu ko jëmale si lu jëm ci nekk nu prisonniers yi yàgg bi ñuy yàgg ci prison yi te kenn du leen jugé ak jafe-jafe yi nga xamante ne ni tribunaux yi moom la ñuy jànkonteel loole nag moom mi lee daal dina si indi ay leeral di xam ne ni kii di président Macky Sall liggéey na lu am solo ci lu jëm si justice ci mim réew. ni ngeen di yëgee décision yi noonu laa yëgee décision yi fekk mu fuñ koy nas di notti li ma ci am rek mooy yëg naa loolu am réew moo xam ni tey état bi day am ëllëg état bi ñàkk naka lañu ñu mën a wax ne justice bi du indépendant justice bu Sénégal justice bu rëy la ñi koy euh, euh, doxal ay nit ñu rëy lañu ay góor yu mat ay soxna yu taxaw ñoo koy doxal ni man xam naa leen ndax damay dund ak ñoom. fexe ba justice di wéy di def liggéeyam di ko dooleel saa su ne bokk ci luy dëgëral suñu démocratie maître Aïssata Tall Sall di xam ne ni ñoo ngi def lu ñu mën moom ak ki collaborateur mi ngir mën a xeex yenn longue détention yi. longue détention yi ni ñu fay yàggee. loolu dëgg la man dëgg bu ñëwee rek man dama wax dëgg bi loolu dëgg la te safaan la ci mbirum justice te ñu ngi koy toppatoo di ko toppatoo mooy seet ci wàllu yoon fan lañu mën a jaar ba nit ki bu nee naam rek ñu ne ko kaso baa ngi ni ñëwal nga dugg loolu moo indi bracelet électronique boo xam ne benn lam la dana la koy takkal nga mën a toog sa kër mën a toppatoo sa liggéey fekk doo dem ca député yi daal di nañ dellu si bu baax a baax ci lu jëm ci bracelet électronique yi moo tax muy xamle ni état wu Sénégal def na si liggéey bu am solo. tey député yi ñoo ngi ñaan loolu ñu yokk ko loolu mooy l' expérience est concluante maanaam liñ si doon jublu macha allah mu ngi mel ni mu ngi commencé ñu di sax kon boog dañ siy wéy continuer si et puis di ñaan yàlla rek prison yi gën a oyof nit ñi bañ fa tëdd lu yàgg ba mbir mi mën a sotti incha allah. moom mi le nag. budget bi li ëpp ci député yi daal di nañ ko voté mu tolloog lu ëpp 92 milliards de francs CFA.